alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimmu saalihaat wa bi tawfiiqihi turfau darajaat wa bi rahmatihi tunsaru albarakaat wassalaatu wassalaam ala asrafi almursalin wa ala aalihi aladxaar wa asxaabihi alaxyaar wa ala taabi'ihi alabraar saahibi almucjizaati albaahirati wal aayaati alzaahirati mawlana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ixwata al aizza ayuha alxaflu alkarim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyuk lislaam muy jàmmi yàlla ak yërmandeem yàlla na wàcc ci yéen wàcc ci mbooleem jullit ñu ngi ubbee wax ji ci sant yàlla mi nga xam ne ci ay xéewalam la mbooleem jëf yu baax yi di mate ànd ak di sëlmal di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ñu deñ di ko ñaanal xiiwal ak mucc yàlla bu mu deñ di wàcc ci moom di wàcc ci waa këram ak i saxaabaam waaye di wàcc ci képp koo xam ne safoo nga ko nekk ca la mu nekkoon ba bés penc di taxaw mbokk ñu bokkal yàlla ñu ngi ñëw ci seen tomb tey di tomb bi nga xam ni mooy ndax dina dagan ñu jël cëru doomu aadama jox ko doomu aadama ne moom ndax dina dagan maye deret ndax dina dagan ki jullit jël cëram jox ko ki nga xamante ni mooy yéeféer bi euh, hal yajuz naqlul aada min adamiyin ila adamiyin loolu mooy tomb waxtaan wi tey ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy topp di soppe yi ak doomu ndey yi Daarul Birri TV di leen ñaanal tawfiq dawamal xayr waaye di leen bégee comme ni ngeen ñuy bégee di leen ñaanalit bu baax a baax comme ni ngeen ñuy ñaanale tomb bi ñu indi nag dafa nekk tomb boo xam ne dafay dugg ci xadaaya saa bu ñu waxee xadaaya saa mooy xew-xew yi nga xam ne xew na lislaam war koo àtte bii daf cee bokk boroom xam-xam yi nag am ci wuute wu baree baree bari wax ji bari ci lool ndax dina dagan jullit bi yëg ne day génn àddina am na ay cëram yoo xam ne mën na koo may waa joo xam ne mu nga tëdd ca lalu hôpital bu jotoon ca cëram boobu dundam dana mën a baax dundam dana mën a continuer ndax loolu dina dagan ñenn ci boroom xam-xam yi daganal ko waaye ñenn ci boroom xam-xam yi dàqu ko ñoom ñëpp nag daañu indi seeni wax waxit seen cislaay ca lañu sukkandiku wéeru ba wax ne lii dagan na wala wax ne lii daganul ñi nga xamante ni ñoom ñoo ne dagan na dugal nañ ko ci buntu sarax dugal nañ ko ci buntu sarax ne aji def ko sax dañu koy fay loolu mu jëf dañ ko koy fay comme ni mu yëkkatee alalam saraxe ko am ca yool naka noonu bu yëkkatee cëram wala mu yëkkati deretam wala mu yëkkati rein muy killa maye ko yépp def ci am sarax waaye nag dëppoo nañu ñoom ñépp ci ne dafa xaram dafa xaraam mooy ki nga xamante ne la muy maye ci moom moo yor dundam maanaam lépp loo xam ne doomu aadama benn la ci am xaram na ci moom mu maye ko lu mel ne lan lu mel ni xolam boroom xam-xam yépp dëppoo ci nañ ne xol moom kenn du ko maye dafa xaram nit ki ne ah man kat ci faatu laa jëm te sama xol euh, mën ngeen ko génnee euh, may ko may ko diw walla may ko diw wala may ko diw loolu moom dafa xaraam dëppoo nañu it ne lépp loo xamante ne su ko doom aadama bi mayee daf koy jural coono ci àddina ba na muy sàkku jee dund daf ci lompoñ loolu mooy lu mel ne loxo sa loxo ne dagg naa ko maye dafay xaram ndax loxo dafa bokk ci liy dimbale doom aadama ci biir dundam naka noonu tànkam dagg leen sama tànk jox ko diw dëppoo nañ ne dafa xaram lépp loo xamante ne daal ci kaw gàttal soo ko mayee mu jural la ak loof ak lompoñ ci sa dund loolu boroom xam-xam yi nee nañu loolu moom lu xaraam la amma li nga xamante ni mooy la mooy lu mel ni rein rein nga ne dindi leen ko ngeen may ko diw ñu ne dagan na li tax dagan na mooy ci buntu sarax lañ koy dugal waaye ci buntu dimbalante lañ koy dugal naka noonu dret yëg ne kat kii manqué na dret lu bari nga maye sa dret ngir ñu solal ko ko loolu itam dagan na beneen bi mooy lu mel ni res resit dañu wax ne daganul benn yoon nit ne nañu jël sama res ñu jox ko diw loolu yépp boroom xam-xam yi daq nañ ko naka noonu jullit du jël cëram may ko ki nga xamante ni moo dul jullit maanaa li tax loolu mooy jullit moom moo ëpp xorma ki dul jullit kon foofu moom werante wuñu fa ñoom boroom xam-xam yi kon xol benn la ci nit am daganul mu maye ko ndax su ko mayee ci dee jëm naka noonu bopp daganul nit maye ko ndax su ko mayee ci dee jëm te yàlla wax nañu ci alquran ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum raxima yàlla mu ne ci alquran bu leen rey seen bopp ndax yàlla day mosul deñ di nekk ci yéen ku am ñeewant waaye ku leen yërëm kon daganul benn yoon nit di jël xolam di ko maye wala muy jël boppam di ko maye walla resam wala tànkam yooyu daganul ci jullit mu di ko def yooyu moom boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci tegtaloo it aaya boobu nga xamante ni moom laa la wax léegi beneen aaya bi ñuy tegtaloo ci wane ne loolu dafa xaram mooy yooyu ñu lim léegi ci ay cër yàlla ngi ak ñun ba tey ci alquran wala tulqu bi ay aydikum ila tahluka maanaam bu leen tabbal seeni loxo ci loo xamante ne daf leen di jural alkande loo xamante ne da leen di rey bu leen ci dugal seeni loxo kon la muy tekki mooy lépp loo xamante ni boo ko joxee mu jural la alkande loolu moom daganul benn yoon nga di ko joxe ak euh, nukkaa bi mën a demee na nga yëg ne yooyu moom daganul kon nag xukmu naqlil aada min insaanin ila insaan point la boo xamante ne wala tomb la boo xamante ne euh, jar na taxaw seetlu nag bu baax ndax boo demee ci maajim yi muy téere yi nga xamante ni ñooy jàngale langue arab luxa ñoom dañuy wax ne tomb la buy soxal nit ñi ndax dafay ñëw ci qadiyatu saa wala qadaya saa daf ci ñëw dafay yitteel nit ñi lool ñu di leen ko leeralal waaye liñ ci mën a wax muy li nga xamante ne moom la jumhurul ulama demee mooy ash-sharia lam tuhrim at tabarru bil aada bu dee sharia bii ñu amee muy sharia al islaamiya xaraamalul benn yoon nit di jël cëram di ko maye lu tax tegtaloo nañu ci ay aaya alquraan yu baree baree bari yu xajul ci jotaay tegtaloo nañu ci ay xadiis yonent bi sallallahu alayhi yu baree baree bari yu xajul ci jotaay bokk na ci aaya bi nga xamante ne ñoom jumhurul ulama ñoom boroom xam-xam yi li ci gën a bari daganal nañ ko aaya ba ñuy tegtaloo mooy fi yàlla di waxee yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla la muy bëgg ci yéen mooy ak yomb-yomb ak lu leen di noppal waaye bëggul ci yéen luy jafe ak lu leen di jafeel la muy tekki mooy nit ki bu tollee ci jafe-jafe di jullit ne yow dimbale ko ci anam boobu mu toll naka noonu bokk na ci aaya ya ñuy tegtaloo ba tey ñoom boroom xam-xam yi nga xamante ne daganal nañ ko mooy aaya bi yàlla di wax naan wa man ahyaaha fa ka annama ahya nnaasa jamia képp koo xamante ne dundal nga bakkan benn bakkan dafa mel ni dundal nga bakkan yépp kon ci la opeere di dugg sauvé ki nga xamante ne jigéen la bu doon am doom sauvé ko ci doom jooju muy bakkan boobu nekkoon ci biiram waaye sauvé ko it ci bakkanam aaye boobu moom moo koy ëmb te moom moo koy daganal kon lépp loo xamante ne rek day tax doom aadama bi am nëtaxug dund am dund gu baax yow nit ki jàppale ko moom la yàlla di wax naan wa man ahyaaha fa ka annama ahya nnaasa jamia bokk na ci aay yi naka noonu bokk na ci aay yi ñu tegtaloo mooy yuridu llah an yuxafifa ankum wa xuliqa al insaan daifa yàlla namm na ci yéen ak woyofal lool ndax yàlla dafa bindu doomu aadama ci ak lompoñ ci ak doyadi kon bëgg na ci yéen ak woyofal bokk ci ay ñi mooy maa yuridu llah li yajcala aleykum min xaraj yàlla nammul teg leen ay tiis tiis ak ay jafe-jafe yàlla nammul loolu ci yéen bu ñu delloo ci xadis ba tey ñi ñuy tegtaloo am na ku ñuy wax usaama usaama ibnu sharik qaala jaa aarabiyun ila nnabi fa qaal ya rasul allah ana tadaawa qaala naam fa inna allaha lam yanzil daan illa wa anzala lahu sifa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila rawahu ahmad benn kaw-kaw usaama mu ne dafa ñëw ci yonent bi sallallahu ne ko yow yonent bi ndax mën nañuy faju mana di fajante ndax mën nañuy faju di fajante yonent bi ne ko waawow mën naa nekk kay ndax yàlla wàccewul benn jàngoro lu muy wàcce na la koy loolu nag xam na ko ña ko xam waaye itam réere na ko ña ko réere kon mën ngeen di faju bokk na ci xadis yi yi nga xamante ni ñoom tegtaloo nañ ko waaye bokk na ci it xawaid fiqhiya ak al usul ñoom ñëpp jël ci nañ ay wax wéeru ci def ci cislaay ci daganal bi ñu daganal jël sa cër mën kaa maye ne dara nekku ci usul ñoom dañuy wax ne wa darurat tubihul mahdurat maana bu demee ba lor nara am lor googu dafay dafay dafay dafay daganal yi nga xamante ne dafa xaramoon mi ngi mel ni waa ji nekkoon ci àll di dox di dox ba réer ci àll ba xiif jàpp na ko gisul fa mu mën a lekkee mu yem ci médd te bu lekkul ci médd bi dafay dal di dee euh, sharia may na ko mu jël ci médd boobu lekk ci lu ko mën a téye ba mu mën a génn foofule kon lu muy tekki mooy ad-daruraat tubixul mahdurat kon boroom xam-xam yi dañu wax ne yàlla dafa teral doom aadama kon doom aadama na teral boppam yow doom aadama yit na nga teral doom aadama ndax loolu mooy li yàlla bëgg kon lépp loo xamante ne nag dafay tax sa diine yàqu walla sa xel yàqu walla sa yaram yàqu wala sa alal yàqu diine def la koy moytuloo diine sàmmloo na la sa xel naka noonu sàmmloo na la sa alal sàmmloo na la sa der sàmmloo na la sa diine lépp loo ak sa wér lépp loo xamante ne daf ci indi ak gàllankoor ak di la ko yàqal xeexal ngir loolu bu mu am kon nañu jàpp ne diine may nañu ñu mayante dret eh, ki nga xamante ne yëg na ne hôpital ba kat ña ngi fay maye deret mu mën ko ngalawaay na dem def ko na yëg ne loolu muy def lu dagan la naka noonu gis sa mbokk di loru ci loo xamante ne yow mii kat mën nga kaa taxaw te du tee nga dund mu dund sharia may na la nga def loolu kon li gën a wér mooy may nañu la en tant que yow jullit nga jël sa cër maye ko waaye nag ki nga koy may na nekk jullit waaye nag yow mi nga xamante ne yaa ngi dund dégg eggagoo ci dee jëmagoo ci dee kooku waxuñu la nga jël sa benn cër maye ko mu yóbbu la ci lu lay lompoñ loo wala lu lay loofloo ak di manqué lool sa jaamu yàlla ak nangay ngay sàkku jee dund loolu nag képp ku ko def nanga yëg ne def nga sarax naka noonu dindi nga njàqare ci sa mbokkum jullit def nga yit lu ñu tuddee at taawun alal bir wa wa kon nag yàlla nañ ci yàlla tàggat lu jub noonu la ko yàlla bëgge yàlla na yàlla defal ñu ko muy jub ak juboo lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu di leen koy jéggalu di ñaan yàlla mu defal ñu jub ak juboo wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu